El Hadj moom ak El Hassan Sall. waaw El Hadj El Hadj El Hadj Diogu Cissé. waaw El Hadj Diogu Cissé. waaw très bien El Hadj la. Euh, muy def liggéey bu am solo tribunal tribunal ay liggéeykat rek ñoo fa naan. Pape Moussa wax nga dëgg. sama waaj. Ah, waaw Younus Taba non tribunal ay éléments yu baax. ak Ibrahima y a un nouveau là qui s'appelle. man na début bi doon naa bind waaye après dama kaa bref. li ma joxoon machine. sa crayon bee dam. ñëpp sa crayon moo dam. pourtant machine boobu mi ngi man ñëpp doon bind. Ah. Ah. man ba léegi. ngi dox ah ngi dox. bind de es. <laughs> mi ngi nañ ay njiitu réew yoo xam ne ku fi ñëw da liggéey liggéey diggee diggee waaye bés bu toogee. Mm. diggee France. le pouvoir a ses réalités de nguur dafa am ay réalités mm-hmm. boo duggagul doo xam. boo duggagul. diggee ba ne saay waaw Ah, nga dugg nag toog ne daal saay. kon nañ bàyyi diggé <laughs> nañ bàyyi diggé. am sax. day am réaliste ak non réaliste. waaw boo leen ma falee boo leen ma falee waaye buñ la falee. bu ñu duggee pale tu sais que parce que. il faut ngeen bàyyi xel ne situation réew mi fu mu toll man a gu ñu may lii. te yaa ko digg woon ca début ba. bu ñu duggee pale ñu dem raaj. parce que quand on devient <laughs> président. ñu dem raaj on préside une nation <laughs> mais on ne la préside pas seul. d'où les relations internationales et cetera yooyu yëpp partenaires yi. Mm-hmm. da ngeen ciy bàyyi xel bor bi nga xam ne si ñoom ci toog. bor yi da ngeen ciy bàyyi les présidents yi boo waaye nag digge bor la. ñu ràcc ñàkk koo def. war la. kon nag yéen ñii suñu candidat yi nii nii fi diggee boo leen ko deful wor ngeen ximin yéen a kayi daal dig yoon nag ci amnistie bi nga xam ne ñu ngi koy mm. am nga am nga ci droit maître El Hadji Diouf démb dafa janox taskatu xibaar yi waaye jamono toog waxtaan <laughs> ko jëfee goo moo sa mën a jiitu suñu chef de village yi nee nañu nañu toog ñoo ngi xaar nag bàjjenu gox yi lu ñuy wax ah reeru amul ñàkk waxtaanaam nanu ko waxtaanee la wax ñoom chef de village yi. Euh, lycée bu plan Jaxaay moom fu mu nekk defaraat nañ ko démb Mamadou Fofana xar kanam bi daal dinañu koy soppiwaat. kan la lycée bu plan Jaxaay. d'accord defaraat nañ ko. Le témoin pour ou contre le report de l'élection présidentielle la guérilla constitutionnelle donc fait rage professeurs yi juges yi juristes yi imposteurs yi. fu mu nekk nag ku si nekk yaa ngi joxoñ sa maaraam ku si nekk nag di andi say thèse di teg. imposteurs yi nag ñoo a ñoo ci rax. dañoo jaxase carte gi. Ah, mais bon moo leen arrangé tamit situation yi lañ mën a dundee lii bu amul du ñu dund du am na ñoo xam ne bëgguñu li coow li jeex. parce que lii moo tax ñuy exister. am na ñoo xam ne dañ ci bëgg a profité ngir ñoom ñu dekkiwaat politique ba mais réalité bi la kenn mënu koo bañ moom moo fi am ni ngi nii professeurs yi juges yi juristes yi imposteurs yi fu mu nekk ku si nekk yaa ngi wax loo mën. théorie bu nekk yaa ngi koy teg ci table bi jamono joojee nag nee nañu coow li lu mu bari bari crise économique bi fii ci réew crise politique l'économie donc ralanti ralenti démb gis nañ secteur privé bi lu ñu wax te wax nañu dëgg secteur privé bi dañu sonn ah ils ont tapé sur la table yàqu amee ah, ñoom ñoo yàqule mm-hmm. six milliards la ñu xayma si li ñu yàqule internet bi rek rek rek ñaata milliards la ñu wax de trois internet bi rek dañ ko tëj noonu trois ñaata secteur privé bi yëpp dañuy yëngu ci internet bi waaye ñi nga xam ne am nga sa entreprise yow nga taaba taaba taaba ba teg ñëw ñu taal ko wala jël kii taximan bi nga xam ne moom moom seen di dawal ñëw ñu jël taal wala sa oto boo xam ne yaa ko moom sa bopp. mais mais les impactés des derniers événements de juin et de mars là ba léegi. ba léegi nii ils n'ont rien. seen indemnité pendant ce temps nag suñu politiciens professionnels yi nga xam ne ñoo naan kaay leen guerre ñoom ci boppam xoolal kenn du laa seen bien de. te seen salaamaaleykum maag salaam ñu jënd billet génn réew mi te seen i doom yóbbaale réew mi quotidien daal di dikk ci conséquences économiques de coupures d' internet mi ngi nii Moussa Bokar Thiam boo ko waxee boo ko xamee ñu ngi la koy fàttali boo ko xamul ñu xamal la ko coupure euh, internet bii. lu mu gàtt gàtt ñetti milliards. ma ne ñàkk respecté nit ñi rek. ñetti milliards yu nga xam ne ni daanaka. moom la ñu dikk nag. boo ko xamul rek ñu fàttali la ko ñu xamal la ko boo ko boo ko xamee ni ñu la koy fàttali. Karim Communauté. l' observateur. Karim ndax communication bu bu muy def résurrection lay doon ci moom ndax euh, Karim dafa mu jëloon Félix saa bu ñu foogee ne dee na rek mu jekkiwaat. Ah waaw en tout cas fu mu nekk nii daal moom ça peut créer une certaine frustration comme euh, s'il disait donc au peuple sénégalais je suis hors du Sénégal mais j'ai la capacité de, de de contrôler la vie politique. et waay avec leur commande. waaw. ah tamit nag mais il y a juste mais je le disais tantôt la politique ne se fait pas mm. que sur le terrain ça il faut l'admettre il existe alors qu'il n'est pas sur le terrain am rek la yor di ah te mi ngi nii nag mu neex mu naqadi mhm. Karim moom politiquement dekkiwaat na ah ce fu mu nekk ni nii dekkiwaat na nag ñu nangul ko ko ah, na temps kenn waxu ko kenn tuddootu ko woon. temps yooyu kenn tuddootu ko woon parce que nit ñi dañ ko mere woon distance bu mu nekkoon ba pare réagirul deful dara mais fu mu nekk Karim a ngi communiquer mi ngi bind parfois sax nga dégg audio. mi ngi Karim. dekkuwaat na ak vidéo Karim a ngi vidéo léegi. <laughs> koo xam ne amoo woon loolu yëpp ci moom léegi yaa ngi am ba am vidéo. ci moom audio. ah des ah. explications <laughs> yaa fi ne woon léegi Karim ñëw Karim <laughs> mi ngi sànq maa doon seen si aéroport bi gis nga lampe yi bari lool ay oto yi di jaabante ma ne est-ce que du Karim mooy ñëw wala oh, maam moo wàcc na jaar jas wala kan moo wala kan moo wàcc fii na jaar jas comme tout na jaar jas comme ñëpp mu ngoog fu nekk nii nag coowal am na si bi division euh, secrétaire exécutif national bi de les arguments de Macky la ligne de feu des radicaux les voies et moyens pour apaiser la et la motion de Sidiki Kaba daanaka la duguti gi ministre de l'intérieur nee pacifier espace pour non nooy na nooy balaa tey na nooy ndax foofu la réew mi toll nii le collectif des familles des détenus politiques crache sur l'amnistie ñoom nee nañu bëgguñu amnistie ah. mi donc leer na ils ne sont pas demandeurs de l'amnistie waaw mi ngi nii révélation sur les cocktails Molotov. saisi dans la forêt de Mbao la forêt de Mbao bii nii ay côté Molotov am les quatre fabricants les initiateurs des troubles ca banlieue ba. mais c'est vrai que en banlieue bon. jaxaay lakk nañ fa ñeenti oto. Hmm. démb Pastaare lakk nañ fa aussi ñetti oto. waaw nañ bàyyi oto jàmbur yi nag. amaana ki ñuy otoom sax daanaka moom it d'accord ci report ki ne taal oto amaana sax moom d'accordul si report bi. nañ bàyyi nañ bàyyi oto jàmbur. c'est ça ñu bëgg a avancer. enquête yéen a kaay ñëw. sous-développé wu. ci euh, loi d'amnistie bi nga xam ne APR daf koo validé. Hmm. le secrétariat exécutif national de la l'APR s'est réuni jusque tard dans la nuit démb ña nga fa woon. il a validé la ko ñoom ñoom démb Saint-Valentin foofu lañ ko passé. non ci réunion ba. ay donc dañoo bëgg seen parti. mbëggeel la rek. ils avaient dit la ah, mbëggeel bi ñu am ci bu dee bu côté boobu d'accord. non mbëggeel politique la. mais mais mais ils avaient dit le la patrie avant le parti. ñoom démb na parti bi la ñu jiital ndax dañoo bëgg parti bi mi ngi nii. fa la ñu passé Saint-Valentin donc donc validé nañu la solution d'une loi d'amnistie pour sortir de la crise Amadou Ba a été confirmé comme candidat kon ña bañoon bi yóbboo ñu continuer di bañ. pour le moment. pour le moment ah. rouge rouge noir. non moi je suis aux couleurs de la paire aujourd'hui <laughs> beige noir man ba yàgg pour man kii nga sol noir noir et ah, est-ce que man sama bëti duma ko dem xool yi. waaw chocolat le président évoque la réaction de la communauté internationale en tout cas. les fa yéene kaay daal na siy dikk. Hmm. les fa yéene kaay des candidats cette fois-ci. Adoub le report de l'élection euh, euh, répare donc la grave injustice euh, qui nous avait été faite il nous rassure aussi que nos droits seront respectés à la reprise du processus électoral d'accord nañu et que la question des binationaux sera tranchée de façon léegi ñoom lu tax ñoom waxuñu ñoom ba lu jógee Macky def li wax na ne ñun dañoo d'accord ci waaw xam naa bi dañ naan buy taw kenn du fa mais est-ce que ñëpp la du ñëpp. de am des candidats donc am na si. 13 si la ñu toll maa ngi 59. yow kay. laas yéen kay daal di dikk entre respect de la constitution et recherche de sorte de crise le Sénégal entre paix et l'épée ban épée la Damoclès. bés bii le jour daal di ci projet de loi d'amnistie pour Sonko et compagnie le dribble donc de Macky en conseil des ministres le président zappe la situation politique tendue daf ko tege boor. yooyu ci yàbbiw ci da ko omerte daanaka l'exclusif daal di dikk appel à manifester pour la tenue de la présidentielle à la date du février nee la niche de milliards et les parce que nag mbir mi xaalis ca nga ca l'aspect pécuniaire bu leen ko fàtte une certaine société civile ñu ne deetawaay l'union européenne et la crainte de fonds perdus c'est vrai parce que ñoom ñu ci ëpp dañ leen dimbali ci wàllum. élection yi def koppar day dugg société ñu ne kan mu ne un professeur de droit aux avant-postes de combat personnel. kon askan wi taxul nañu ah bah voilà. <laughs> nee naa la xeex bi fukki xeex la juróom la ñu boole. c'est des porteurs boobu leen. nee naa la xool xeex bi fukki xeex ak juróom la ku si nekk ak loolu la tax a jóg. am na ñoo xam ne du ay report ak yooyu de. aywa huit heures jot na de. Macky déchire projet jot na. kon ñu dem ci audience. sëñ Këm nit daal di assumer ses positions dafa am. Moussa Bokar am laaj ñaari téléphone bi ko tënc. entre le marteau euh, de euh, de askan wi ak ñoom député Guy Marius Sagna. Mm. et l'inclus du euh, du syndicat des ñu ngi nii moom mu nekk ci digg bi nag ñu bloqué ko xamul fu muy.